ma jigéen ndaje bi nga xam ne après amaloon nañ ko nag ngir seen livre boobu nga xam ne bind nañ ko li ñu révélé li nga xam ne loolu la président bi nga xam ne moo nekkoon ndeysaan suñu président bi namoon nañ ko nag gannaaw li <laughs> ah ma jigéen namoo Macky Sall ak li mu liggéey ci 12 ans yi bind nañ ci ñam no 12 nekk am nga sañ-sañu wax loolu 12 ans na moo Macky Sall mm, noo gisee seen résultat yu keroog bi nga xam ne def nañ ko ma jigéen lu waxee woon ah seen livre bi nga xam ne def nga xam ne. moom kat dafa précisé wul xaw ma ah. ah, li mag li Macky Sall liggéey ci réew mi douze ans yi bu ko xeeb. yaa gën a xam li ma la laaj waxal noo ko gisee. liggéey wala liggéeyul. waaw Didi am na solo yu asan yi am na solo lool. wax dëgg yàlla ndaxte président de la république du Sénégal Macky Sall nag quoi qu'on puisse def na fi. loolu moom kenn du ko ah, weddi. ndaxte euh, def na nag. waaye li mu yàq ëpp waaw parce que man dama jàpp ne wax Ousmane Sonko bi mu waxoon ne euh, réew mi dañu ñëw mu fekk ko en ruine moo indi effet yi yëpp parce que Sonko nag moom ay waxam moom moom mu faw rek mu am ay kii quoi du du si ñàkk mais li ñuy wax ci livre bi que ne dañu def seen bilan euh, wax li nga xamante ne nii 12 ans yi ñu fi jot a def Macky Sall li ñu fi liggéey certes maa ngi la koy wax def na fi dara euh, ndaxte soo xoolee. Euh, mën nañu wax ñoom li ñuy sukkandiku bokk nag ci infrastructure yi nga xamante ne nii wax nañ ni euh, yi def na ko fi waaye dafa am man benn affaire bu ma ci gis parce que su ñu ñëwee tey ne terre bi d'accord am na ñu bëri ñu nga xamante ne nii ñu ngi leen di dimbali mais boo seetee si 18 million de Sénégalais yëpp daanaka ñi ciy yéeg moo du suma juumul damay bañ a def li Bougane defoon. bu ma juumul ñi ciy ci yéeg mak matuñu matuñu ah, cent mille personnes waaw nu mu mën i bëree it mais dafa nekk loo xamante ne nii jàpp naa ni sénégalais yi ñi nekk Thiès ñi nekk Tamba nekk Kaolack ñun ñëpp ci Sénégal lañ bokk kon donc su fekkee da nga teg loolu wax ne sa bilan la rek am na ñoo ci épargné beneen BRT bii ñi ci yéegi tamit su ma juumul matuñu nombre bu nga xamante ne ni mën nañ ñu ne ah Macky Sall def na bàyyi na fi loo xamante ne ni ñun sénégalais yi képp fu waaye mën a nekk rek gis nga ci sa bopp bu dee autoroute bii ñuy bàkkoo autoroute bi président Abdoulaye Wade moom moo ko fi lii kon donc certes mu ngi noonu euh, certes ñoo ko continuer mais projet wu Wade la woon kon donc man loolu mënuma wax ne seen si seen bilan la bokk beneen Euh, si yàq-yàq yi yi ñuy wax ne ñoom dañoo jàpp ni dafa dañoo defar li ñu yàq si réew mi dafa bëri torop rawatina nag ci jamono yi ñu weesu parce que deret yi fi tuuru bari na loolu ñoom dañ koy fàtte ñi nga xam ne dañoo leen a xañ seen àq ak seen yelleef bari na fàtte xaju fi ñi nga xamante ne nii jël nañ leen xaj xañ leen euh, li nga xamante ne moo di tey seen i liberté Ousmane Sonko mi amaana tey bu dul woon jafe-jafe mag maam may Niang ak ak ak Adji Sarr te yooyu yëpp dañu wax ne ay dil yu ñu tegoon kon donc loolu dama wax rek si li gën a ndaw li nga xamante ne nii def nañ ko ci réew mi kon donc man bu ma jàppee ni tey jii nii dañoo taxaw di wax ni dañu dañu dañuy def seen bilan mais man gisuma loo xamante ne nii lu lu lu lu sénégalais yëpp gis seen bopp la certes nag kenn mënul satisfaire ñëpp mais au moins nga def maximum ñoo xam ne kat diw mii nii nangam ak nangam ak nangam te aussi lii ñu def tey nii waroon nañ ko def bien avant parce que mënuloo toog sénégalais yi moment bi ñu leen di wax kaay leen wax ci li ngeen def kaay leen wax ci li ngeen def mais dañu topp ay benn nit ñetti nit di daw di daw di daw amaana tey jii nii bu Ousmane Sonko génnul woon ne dañu fekk ci réew mi réew mu réew mu nërmeelu amaana mënoon nañu sax bañ a génn waaw ah, parce que Macky Macky nekku fii ñoom tey ñii ñoom ñii génn non seulement entente amul ci seen biir parce que Amadou Ba ma nga ne ci côté am ñii ànd ak Abdoulaye da Diallo ñan lañ fa gis ay si Kaba ak ñeneen ak ñeneen man daal nit nag doo ko xeebal mu def mais en en en en pour conclure. Euh, li ñu yàq daal man pour man moo ëpp li ñu defar ci biir réew mi. d'accord yow daal da gis ne. c'est trop tard ci biir euh, bi noo ko jàngatee c'est trop tard wara dañ doon xaar ba pare pour def ko ak Amadou Ba bi nga xam ne gis nañ fa absence am. waaw mm-hmm. a toog ñoom ndax am nañ ay géwélu juddu. Mm-hmm. am géwélu parti am jaami parti am suqu parti am fenkatu parti am seytaane parti am yàqukatu parti. am ay wax katu parti. Mhm. waaye léegi pourquoi ñoom mënuñ ñoo toog xaar ñu waxal leen man je suis désolé ci seen bilan ak seen livre ñoo xam parce que sama maam daan na wax ne sax certes fukki baax dina suuf benn bu bon waaye ñoom seen fukki yu bon ñoo ëpp seen benn jëf ju baax. nga foog du ma ne gaa liggéeyuñ. Mhm. dugguma berte je suis véhiculé alhamdulilah am na ñu ci dugg euh, nangul naa leen ko yal na leen yàlla may lu leen di yóbbu di leen indi. nangul naa leen berte ak leneen ak leneen ak nangam alhamdulilah certes état continuité la. am na li nga xamante ne Ablaye Wade Fara Wade Ndiaye jóguñ ci songum xeer sama maam ji yàlla nga gudd fan yàlla nga fi gën a yàgg ñu nga leen yaa leen suul toog nga seen dëj wallaay suul nga leen te yàlla nga leen gën a suul ndax yéene nekk la borom a cay fanaan donc am na yi ci xamante ne nii mhm. Macky Sall dafa ñëw yeggali ko ñu ngi koy commencé wax ci président Bassirou nee nañ lim tànk yi Macky Sall taxawal la continuer di taxaw di yeggali certes lépp mënuñoo ñëw rek ak seen xelu bopp état continuer te parce que lan moo war a passation de service di la ñuy waxante ñu koo xam commencé naa Thiès ruqumaa jigéen benn tali yeggali ko banque bi maa ngi ko war a jox temps de xaalis mottali ko diw jox na ma temps diw daf ma daan finance diw daf may may diw suñu partenaire loolu mënoon ñàkk donc loolu moo war a naan état continuité la donc la mënoon ñàkk man nag damaa jàppaan dañoo juum ndax kuy sang sa bopp ku ne wala dëgg fa yàlla doo gis saabu doo gis tilim waaye ku sangoo téeméeri paan ndox boo setoo wallaay dootoo set te ñoom dootuñu set ndax nit ñi jépp nañ leen ba pare tàng nañ xolu réew mi ba pare yàq nañ réew mi ba pare yàlla indil ñu sóoratul muñ sóoratul alhamdulilah respirez-vous bien toog leen ngeen dal te xam ne Sénégal euh, pays Afrique yëpp comme yàlla may nañu un jeune président dina mel ni comme France comme ni ñu ko doon waxee temps yi xale bi ñu nekk xale naan l'an 2000 Sénégal dina mel ni comme France yàlla nañu ko romb itam romb sax États-Unis d'Amérique ndax dara joomuñu lépp rek li koy wane mooy juboo ak engagement ak détermination itam ak jub ak dëggal ak leeral kon ñoom seen livre boobule euh, ñoom dañoo juum dañoo juum bu baax a baax a baax ndax tey ku ci mel ni commissaire bi ñu wàcce woon tey non ah, naam euh, ak waa tey falaat nañ ñenn tey ñi ci dund ñu dagg seen i loxo mais fàtte xaju fi ñi yàq seen liggéey ñi nga xamante ne tey dañ leen ñàkk sama xarit boo xamante ne ndee la ma koy nuyu au passage magam joo xam dafa demoon liggéey ji ko bal léegi ñoon dañ leen dana mangé ba tey ñooñ seen yaay dañoo mën a juraat leneen nañu arrêté bu ñu jaaxaan di tuur ndox seen bopp la ñuy tuur ndox mais ñoom ñoo leen gën a bir ne Macky Sall li mu yàq moo ëpp li defar ndax Macky Sall dëgër na bopp ñoom ñu fi bàyyi dëgër bopp a tax ñu continuer di wax Macky nga toog jàpp ñaambaram kenn namu lax boo ñëwee lañ doon wax Ablaye Wade doo ko dégg góor gi dañoo juum baal ñu yow de billaahi wallahi talaay doo dégg Macky baal ñu dañoo juum ndax ñi seen doom yi dee ñi ci loru ñi ci ñàkk seen liggéey ba léegi góom googu laa wax dakee ak alcool wéralu ko seen xol yaa ngi métti ñu ngi am lu leen naqari kon damaa bëgg Sénégal bu ñu naxante parce que dañoo yeew président Ousmane Sonko dañoo yee yée ñu moo tax tey jii mu am lii mu am am plan B bu doon boppam kese lay def wala muy diviser pour régner barke Seydina Mouhamed président Bassirou doon président kon danaan man donc sama boppam a ñor mais kon kooku nga xamante ne boppam ñoru ko xàll na def na ay defar na fi ay cadre ay missionnaire ay porteur de voix kon kooku ngàcce ngalaama yaakaar naa ne gisuma lu ñu ko war a sikkal ak lu ñu war a sikkal ay réewam itam Macky Sall am nga fi l'histoire boo xam ne retiendra kenn du ko fàtte Sall ngaari yéen wuñ la ko woon nag boo doon may mag njekk di baale di jéggale bañu politiser yenn yi yaakaar naa kon boo demee loo dem dem dem Maroc Sénégal lépp ci Afrique la dañ lay nama di di la sénébal di la laay fa naan la nekk na nañ la waaye defoo fi lu def nga fi lu weng loo xam ne billaahi wallahi tallaay kenn ko fàtte man day rafetlu ma seen génn te amul benn sens dañu waroon toog ñu bàkk leen waxa leen seen baax waaye nit kuy sang sa ko ne doo doo doo tilim. ñoom da leen namu nañ namu nañ ki nga xam ne namuñ sooy wane ndax ñoom ñoo leen namu ñoom ñoo namu Macky Sall wala askan wi. ñun de namuñu leen. bonne question euh, oustaz noo ko jàngatee rek mu nekk loo xam ne doy na waar ah. tàkkul ah? oustaz ñëwal waaw. waaw li muy wax soxna Didi. Mhm. mooy boo amee jabar soxna. wala nga am jëkkër nga dund ak moom fukki at ak ñaar yaa may dégg mm-hmm. nga am jëkkër wala jabar nga dund ak moom fukki at ak ñaar nooy def moom da koy xas wala da koy tàgg question la laaj. oustaz yaa ngi comparé bu comparé non non yaa ngi def erreur déglu ma bàyyi sa yi ngay ma waaw ça dépend dañ ñoo di wala laajoo man ma xamoon maa ngi doon déglu ku ne bi ku ne damaa déglu boo waxee loo fi war a wax dañ lay wax waaw déglu lay jubal waaw nañ déglu man déglu naa la bi ngay wax di eh, ah, ma jëfaat loolu de te comprendre naa kii di gën a ay ay ay dégradé. mais baam bi déglu naa ko. bu toll nii baam bi def noonu laa nangu. xaw ma la oustaz mu wax na kaa na ko wane oustaz booy la. bu nañ déglu nañ déglu nañ déglu bisimilah nañ déglu yore lañ déglu. dama ni. jabar joo takk fukki at ak ñaar laa ni. nga xëy fasa ko. wala jëkkër joo amal fukki at ak ñaar nga xëy fasa ko. après sa diggante ak moom diri lan la. da nga koy xas wala da nga koy tagg. lii réew mi la. loolu c'est personnel waaw loolu ñoom ah, ñaar la concerné wul Sénégalais yi na waaw ñu tagg bu fekkee nam fa sëyee baaxul ñu. dañ koy xas waaw. man na gisuma loolu nga góob rek ngay gàtt man nag gisuma loolu. ah di ngay comparé ci boppam moo am non non non. am na si droit kay ndax yow non non non bul jël lu nga xamante ne nii. yow non moom exemple lay joxe suñu yoon nekkul si kam. yow yaa de sànq na woon ak Sall yaa jiite réew mi. ñun ñëpp nga bokk ñu jiite ñu. après nga nga koy comparé. waaw léegi sànq waxoon na woon ak Sall exemple lay ñëw. enfin xamaguñu li mu bëgg a wax. ñëw Sall sama noppi. ma noppi de parce que ma noppee de damaa noppalu ko ci te ñaanal ko. waaw maa ngi doon déglu Modou waaye ko déglu ba pare bu taa bu nga doon déglu comprendre naa li muy wax nangul naa ko gis-gis sama xalaatam. dama ni Macky sàll mënul def fukki at ak ñaar ki Sénégal ñoom ñu génn di montrer seen livre ñu bëgg leen xas ni leen defoo leen fu kan leen xas ñu bëgg leen a xas ni leen defoo leen fu tuus xam nga loolu duma ko déggee noonu man mm. ça résonne mal moom ci sama nopp li may d'accord mooy ñii fi nekk tey muy président jomaay ak Sonko mi premier ministre am wax naa fii ni kenn mënagu leen a juger ci lenn dooni defar nañu dooni yàq nañu nag France mais bi mu bëgg ñu déglu fi il faut que ñu ni Macky Sall am na lu mu def ci réew mi loolu dëgg la tey man boo ma laajoon ni ma Souleymane nan ka gisee gu ni Macky Sall gouverner ci du ans yi dama naa la Macky Sall benn problème moo nekk problème ba Sénégal yëpp mara ko problème mu la. Mhm. man foofu rek laa gis. Mhm. li si des nag bërëngu dajul suuf. waaw mais xam nga lu bon d' accord mais man man bëgguma wax sax quoi bëgguma wax mais yow xa yow xamoo ko ma voteel. bëgguma wax xam man xamoo ko ma voteel. ba jour vote jotee kenn xamul ku ma voteel ku ma ko waxul mënoo koo xam. xam nga affaire bi. de ñu bare bari muur ci plateau yi. Mhm. dañuy yàq ba xam tax. Mhm. boo gisee ngay dégg ñu ay télé Sonko ay rajo Sonko ay ay ay ay ay TikToku Sonko ay WhatsApp c'est que nit da ngay équilibrer sa communication. est yaa ngi dégg nit da ngay équilibrer sa communication. yi mënoo nekk ci télévision ànd na yëpp di seetaan ngay chroniqueur wala wax wala bul faral Macky bul faral sonk waxal li nga xam ne mooy intérêt sénégalais yi. mais doo ñu bari bari ma leen duglu seen seen bu ñuy wax rek seen position dangay ngay sentir ni dañoo faral président Sonko da ngay sentir loolu da ngay sentir dañoo faral président Sonko te or que ba bam bi li ma gëm mooy Sonko def na lu rafet màggal Touba jot na mu ànd ak délégation dem Touba loolu xam nga dafa rafet yeneen këru diine yi di ko xaar Macky Sall dama bëgg nit ñi xam lu leer këru diine yi ci Sénégal yëpp xam lu ñu ko tuddee woon bi muy door a falu l'ami des marabouts des chefs religieux ma ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa lay wax attention non loolu avant la te loolu déggin la rek citoyen ordinaire avant la te loolu déggin la dana bañ mu dévier ma sax te loolu mën nañ ci discuter ndax citoyen ordinaire yàllaa ko ñu ko wax jaam ñi mm-hmm. avant Macky di ko wax waa Macky dafa répété rek mais yàlla moo ñu ko wax jaam ñi citoyen ordinaire léegi nag politique moo waral di dégg benn baat bu Modou wax nga utiliser baat bi parce que da ngay politique pour gé a rabaisser mm-hmm. moo waral nga dégg ñu naan kii fonkul këru diine yi mais Oustaz Sonko lu gars yi lu fi gars yi wax. te tey màggal am na ay salafiste la ñu te yàlla mi ñu tëb xam man bi ñuy wax loolu noonu man gëwuma woon loolu ñi ñu doon wax man en tant man musuma gëm loolu xam nga lu xam naa ne ndongo daara la jàng na xam na la mooy àqu réew mi xam na la mooy culture réew mi mais dafa am loo xam ni bam bi mënu ma ko d' accord xala Macky deful dara ci fii d' accord uma Sonko du jàmbaar du jàmbaar ku ko wax damay xuloo yow ku ni Sonko du jàmbaar non damay xuloo ak yow Didi. Mhm. damay ni xulu Sonko mu ngi ci yoon. voie bi mu jëm nag fi mu jëm ak ñun xamuñu ko waaye bul ni Macky Sall bilan bi ñuy def livre blanche bi livre bi baax na ndax da ngeen ni politique. Ah am na lu ngeen dégg génnee nañ ko ñoom. yéen yéenay opposant numéro un politique leen. Ah faut qu'on se dise la vérité ñu bàyyi bandi ak di wane ni orange laa sol ak yooyu yaru ko. yaa ngi dégg boo sañsee sa tissu avant émission nga ko am nga xaalis def ko amul problème. am na ko xam ne amu je dis la bàyyi leen nit ñi xoolal moomoo leen nit ñi plateau yi bu leen ci toogee bu leen foog ni fo Sonko rek moo ne ci réew mi bu bu leen ko def am na ñeneen ñu ne ci réew mi ñu dul Sonko am na ñeneen ne ci réew mi ñeneen ah non kii yow tam yow tam yow tam ah, ma jigéen ma ma wala ma yor carte membre waxuma la de néew ma da nga cee bokk man ngay waxal kay non waxuma da nga bokk déglu kii dafa laaj dafa doucement chaque jour da ngay bëgg attaque attaque bi ngay dugg baaxul. kii moo laaj dama ni nañu bàyyi toog ci yi. waaw man ngay waxal boo nee moo sol lu orange. di défendre Pastef. loolu maa ko moom. maa ko moom ma ne la man bokkuma Pastef. man ma la Macky Sall def. man foofu la mu soo ko def. non c'est que problème qui se pose mooy dañuy waxtaan rek Moodu li ma bañ mooy am nga droit ma jigéen faral Sonko man am naa droit faral Jomaay. am naa droit amoo droit bam bi. Ah, amoo droit gis lu baax ci Macky Sall ma ni ku baax la. Mhm. Amadou Ba. ba ma koy gis kër Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz Aydara Cheikh ay dara di wax ma koy jottalil ci li Amadou Ba di wax nii la Amadou toogee Cheikh Naama toog nii ma toog nii ba mu génnee laa ni kii physiquement profil am dafa yaru. waaw loolu dëgg la est-ce déglu. da nga koy nangu kay. fu on ne ah, juge pas la personne. Moodu mënu mën a siise xam naa la bu yàgg kenn ñi fii kenn njëkkuma laa xam yow. dëgg la est-ce que loolu nit ñi xamoon nañ ko. kenn njëkkuma laa xam. dëgg la Walf Thiès bu mësaan am problème cinq heures la ñuy am problème duñ ko dégg balaa timis Moodu gaare. ñooy fanaanoo dama lay wax ñooy fanaanoo doo ci Walf Thiès mu régler émetteur bi defar door dellu Dakar ñaata reprise bari na. léegi mbaax googu du ma la ko waxal lu ma la bañ bañ bañ bañ Moodu xanaa war naa nangu yow parce que dafa war Moodu li may bañ mooy xoolal toog plateau yi mel ni xoolal Sonko dafa am ñu mu nekk dool ci réew mi am na ñeneen gars yi ñu war a ñëw ah jomaay bu liggéeyee ba liggéeyam jeex am na ñeneen ñu war a ñëw war a teg fii projet sénégalais war ko conseil ñeneen tóor ñooñu lu ñooñu rek ñoo fi ne dëgg la bravo liggéeyu noonu bàyyi jàll bàyyi jàll Macky Sall mere woo ko. bi mu tëjee internet un mois. bàyyi ñu jàll mere woo ko moo bi ah oustaz oustaz loolu la di revendiquer ni nga posé dafa baax. dafa dafa am rythme am gaan. da nga ne ma ndax bi ñu tëjee wal fajri. bi jeex rek ñu jox problème bu dagg ma ne leen dimbale nga ma xam wax léegi yow boo jeexal su ma la jeexal mu nga dem nga bañ. pourtant ban bi moo laaj lu am solo ma ci doon ton rek. d'accord waaw métti oustaz bu waxee waxul moom duñ kenn duñu dégg <laughs> mais boo waxee loolu fa tax duñ duñ ñu jiwoo. te liggéey la ñoom am na ñu naan d'après livre bi. loxo bi ni mu tàmbee kon Sonko ak ki nga xam ne maanaam gouvernement bees bi liggéeyuñ parce que si euh, programme mu Macky Sall lañ nekk di doxal ba tey mooy li kii di wax sànq rek. waaw oustaz kii yar rek mu ñar rek. liggéey moom dafa am facette yu bari ñu ko mën a jàngatee bon man damay wax ci livre moom tàngal ceeb la benn livre waaw livre bi tàngal ceeb la. waaw léegi li tax li tax mu ne man kay bàyyi rek ma wax rek. bàyyi rek ma livre bi tàngal ceeb la xam nga dama nekk tàngal ceeb. waaw ba ko li tax mu wax ko. Ah, waaw bi ceeb bi fan la jëm. livre bi tàngal ceeb la xam nga livre bi nekk tàngal ceeb. maanaam ñoom livre bi mënuñ cee wax lu nit ñi xamul. wax dëgg livre bi mënuñ cee wax lu nit ñi xamul te nit ñi mën nañ wax luñ ci bindul est-ce que dégg ngeen ma. dañuy rek. waaw ñoom waaw d'accord. pour waa Sénégal ay kër. seen programme la non du la ko wax. waaw dama la waaw dama la mën naa ko mën naa ko mën naa ko doon man. man man benn parti. waaw dama ma wax ma wax benn parti waaw si non non benn parti la benn parti la mos am carte membre am. benn parti la mos am carte membre am c'était en 99 te AFP la. waaw boobu ba léegi. amuma benn carte ma jël benn parti ma jël carte ma amuma benn ñëw politique bu may assister. ah kon leer na. leer bi leer na. damay wax sama xalaat ci réew mi. ce soir vote nga oh, man musu man man pour man toog bañ a dem voter pour man loolu devoir bu ma du ma ko manqué. Ah, waaw damay dem voter te du ma voter bulletin blanc damay voter waaw. Euh, kii bi livre bi tàngal ceeb bi mënuñ cee wax lu nit ñi xamul te nit ñi mën nañ wax luñ ci bindu. wax bi leer na non léegi na positif ma li positif ci livre mooy depuis bi ñu ñàkkee nguur ba léegi démb laa soo gis permanence su kilifa yëpp toog ñenn bokk lépp bokk ci kilifa yi toog bon ñëpp ñoom maanaam ñi ñi nga xam ne jàpp nañ ne njabootu Macky Sall lañ démb tase nañu mm. képp ku fa nekkul bokkoo ci njabootu Macky Sall loolu laa gëm Amadou Ba ba fa nekkul non Amadou Ba bokkatul APR daf ko war a fësal nit ñi xam ko mais Amadou Ba bokkatul APR moom ak ñi mu àndal muy Cheikh Omar Anne Aliou Sall rakk Macky Sall def na déclaration nee na bokkatul APR boo demee jël ñeneen ak ñeneen ñu bari nee nañu ñi Amadou Ba ñi mu àndaloon di dem di seeti këru sëriñ si gisoo fa kenn démb. ak lenn dem jaale dafa jaale ji waaw moom la jaale loolu moom waaw jaale waaw rafet na. li nga wax Ousmane Sonko sax wax ni kii bokkatul Amadou Ba bokkatul APR. non Amadou Ba wax awa li nga wax yow eh, yaa ko wax. non Amadou Ba bokkatul APR waaw. Cheikh Omar Anne ak kii Aliou Sall wax na ne bokkatul APR loolu laa ni Cheikh Omar Anne bokkatul APR wax ne Oustaz dama ne bokkatuñu APR wala gisuñu leen fa am na ci nekkoon démb am na ci ñoo xam ne amatu Ba la ñuy jàppale ji mais ñoom dañ ko officialisé gul ndax dañoo xamagul waaw dañoo xamagul ban tànk la ñuy taxawee jiixi jaaxal bi la ba ñu yóbbaale leen ci Mumbaay ñu dem am na ci ñoo xam ne amatu Ba contacté na leen ba wax ak ñoom ba pare mais amagul feu vert pour ñu ñëw am na ñoo xam ne dañ ko ne tegal li ngay teg ba pare voilà léegi nag ña fa nekkoon démb coloré lañ fa taxawee kon ñoom jàpp naa ne ci njabootu Macky Sall Macky Sall lañu loolu mooy point bu positif bi maanaam pour une première fois ñu gis APR woote ba ñëw taxaw far ba candidature amadu Ba la jàppale te man biir na ma ne Farba Ngom Amadou Ba bu laajee ci moom ma leen jàppale ci. ci Amadou Ba la jëm waaw fa la jëm moom dafa leer nañ. Farba Ngom waaw non Farba man kay li wax dama koy wax mu leer nañ. voilà mais démb ñoom ñëw nañu parce que ñoo jàppoon ne moment la pour sargal président Macky Sall léegi nag man li ma leen di laaj mooy lan mooy opportunité livre bi man loolu mooy sama problème. waaw parce que livre bi tey moo nañ ko génne wala boobu moo nañ ko mënoon nañ ci communiquer malgré tàngal ceeb la mais moo nañ ko wax bi ñu amee candidat mu tudd Amadou Ba mm-hmm. ñu ne ñu de kii ni day ngeen ñu ñu ne mooy suñu candidat mm-hmm. li fi waa ji yëpp liggéey moom bu ñëwee dina ko continuer mm-hmm. ñu ne ah kon day lii mooy seen liñ fi def te lii lañ laaj pour ñu eggali leen ko waaye ñoom dañoo bàyyi ba ñàkk nguur ba nga xam ne amatuñu dara ñu soog andi livre ne diw lii la fi def léegi sénégalais ngay waxal ne diw lii la fi def sénégalais yu livre boobu la la leen di jëriñ man loolu mooy sama problème muy benn beneen bi Macky Sall man mënuma ko juger ci bilan xam nga mënuma ko juger ci bilan nit Macky Sall bi ñu ñëw di jël budget Sénégal Abdoulaye Wade bi ñu koy jël 2000 Sénégal ñu ngi amoon budget annuel bu 500 et quelques milliards Abdoulaye Wade jël na ko andi ko ba 2012 andi ko 2300 2400 Macky Sall la ko jëlee 2300 2400 milliards ba ba mu fiy jógee nii budget bi mi ngi 5000 6000 7000 milliards kon nit mënuñ laa jox ci 12 ans presque 50 000 milliards te nit du génn du gis loo loo fi defoon na wax dëgg fa yàlla. impossible voilà gis nga muy TER projet bu baax la mun nañ wax ci ne coût bi maanaam njëg gi jar na comme jaru ko loolu mun nañ ci discuter BRT projet bu baax la. mën nañ wax ci coup bi jar na comme jaru ko loolu mën nañ ci discuter opportunité bi mën nañ ci discuter war na waru mën nañ ci discuter mais projet yi moom projet yu baax la ñun ñu dëkk Tëngéej man mosumaa dugg teer man mosumaa dugg teer wax dëgg fa yàlla mais ñun teer ñun ñu yor oto di jël péage bi li ñu teer wàññil ci embouteillage non ñun xamuñ nu mu toll ndaxte tey boo demee teer ci gaar bi da ngay gis ay kilifa ñu gaari seen oto dugg teer liggéey Dakar léegi nag ñi mu arrangé diggante ñiy liggéey Colobane ba demee Dakar ñooñu même buñ nekkee cent mille sénégalais baax na ndax 100000 sénégalais yooyu boo leen jaaralul ci terre dañuy ñëw buuxante yow ci oto yi bouchon am ñu bloqué autoroute muy benn boobu baax na dëkkuma Géejawaay dugg naa BRT ndax bi muy soog a tàmbali dama dem xool dugg man la woon ab Ablaye ak Bekaay bu Géejawaay info maa ngi koy nuyu ñu dem géejuwaay projet bu baax la bu excellent sax tey boo demee laaj ñi dëkk géejuwaay di jóge Géejawaay di dem Petersen wala di dem Sandaga nga ne leen BRT baax na wala baaxul dinañ la ne baax na. kon projet yu projet yu baax la am na yeneen électrification rural am na euh, kii euh, feeraa man maa ngi dëkk booru jaxaaw sama dëkk cosaan bu ñu fa doon dem dañuy jaar ci ay suuf léegi mun nañ jaar tali ba njëbel jaar ci tali suuf yéeg loolu lu baax la te loolu yëpp ci nguur Macky Sall lañ ko amee xam ne mënuñ laa jox dépense bu toll noonu te ñu ne doo foofu def na fi mhm. léegi nag mais dafa am loo xam ne sénégalais yi xam nañ lii de li may wax nii sénégalais xam nañ ko waaye teewul bi mu ñu joxoñee candidat dañ koo sanctionné oh. xam nga lu tax Euh, Macky dafa échoué ci politique mooy maanaam justice bi ñuy wax ni yëpp yëpp ay projet politique dong la dafa bëgg taxaw ni kenn du ko utu ku dul ku ànd ak moom te loolu noonu moom amul droit bi amul cër bi ndax moom bi muy ñëw dafa ñëw sénégalais yi jox ko confiance fal ko buy dem sénégalais yi ñooy tànn ku leen neex gis a Macky Sall moom moo yàq bilan ma tey mënoon naa fi toog di ko waxal lu baax di ko waxal lu baax ba jug bu fekkoon jéemul woon éliminer xalifa Sall Karim Wade ak Ousmane Sonko ñeneen sax éliminer na leen ñu jox ko mandat 2019 mais moom obsession bi amoon ci éliminer Ousmane Sonko moo ko andil ci problème yëpp li loolu la Olof Ndiaye di wax naan ku iñaanee sa ndono sa dee ñaaw léegi nag deewin dee bi moo ñaaw moo tax nit ñi mënuñ ko gisal lu baaxam mais def na merci non man man dama ko soxla non def na non ma de. def na ah. léegi nag ñoom APR ñoom APR man dama leen di jox un conseil. waaw non def na ah. la wax sax moom. waaw man loolu conseil mooy jox ma. waaw APR erreur neen erreur la li mu def lu baax leen Macky Sall marchandise bu périmé la kenn mënatu koo jaay ñoom loolu dañ ko war a xam seen bopp gis nga ñoom bu ñu deful seen pootu biir néeg génnee nit ku am doole mu def face ak ñii ils vont mourir politiquement ndax Macky Sall marchandise bu primé kenn dootu ko jaay. na nekk marchandise bu am valeur nangam nangam mais bu date de péremption bi jeexee. kenn dootu ko mu jaay te Macky Sall date de péremption dafa jeex. waxal ne moo fi gën moo fi nangam moo fi nangam du tax mu dell dellusiwaat ci réew mi. ça c'est fini. Mhm. léegi nag ñoom bu fekkee ne ñoom dañ ko bëgg def point pour booloo ñoom politiquement loolu dañ leen koy wàccee parce que seen organisation politique la waaye lii wér te nañu préparer mirage Macky Sall donn loolu mooy dëgg de waaw ndax miraas moom foofu mu am non non foofu mu am li may wax ni c'est péjoratif bëgguma ñu wax affaire waxuma way dee il faut ñu miraas ko maanaam li fi bàyyi il faut ñu séddoo ko ba <laughs> moom def non non moom moom wàccewu leen testament bu leen wàccewoon testament kon dox bi leer ndax testament moom bu ko fi rek dox bi dina leer mais maanaam moom moom dem na te testament am leerut ndax dafa leen joxoñ nit te jàppalewu ko ci biir këram am ñu rébelé wu ba moom finalement mu dem ci noonu léegi nag dañuy woo imam bu mel ni Souleymane bu baax mu mel ni Souleymane Diaw mu miiras ko xam nga miiras bi mooy lan ku ci nekk na nga jël la nga am ku nekk boo séddoo ba pare nag bu la neexee ngeen booloo waat nga ne ñun dey am naa xaftaan bii ci Macky Sall waaye xaftaan bu jébbalaat naa ko Souleymane Diaw Souleymane jow mooy sama kilifa mm. loolu ñoom tant que defuñu ko dañuy am problème mënu mm. ñoo wax a wax maa ngi dégg Mansour Faye mu naan Macky Sall na dellusiwaat ci réew mi a xam ne réew mi bu fi gaaw tegaat tàngam ko ñëwal est ce loolu laay wax moo may la. passeport bi xam nga xam nga dañuy wax protocole kam ma ne ñaan protocole teenu bàyyi soo gi nangam man protocole bi dama te mënuñu mm-hmm. ne waaw Macky Sall génne na Ousmane Sonko Diomaye jox na leen oto jox na leen xaalis amu problème amu ci problème waaye en retour moom lan la ci gagné man loolu la ma nit mën a tontu ba léegi. waaw ñun ah, Sonko lan lañ ko jox waaw léegi moom fexe na ba génn mm-hmm. dem na moom Macky Sall gëm naa ne du ñëwaat fii moom du <laughs> moom génnaat waaw non génnaat non li ñuy wax non Macky Sall li fi def xam nga gis nga jomaay ku am yar la ku jox cër mag la jomaay ku la wax ku am yar la rek mooy dem ba français di Abdou Diouf loolu foog nga am yar am humilité pour mun ko def waaye mag nag du toroxal boppam te Macky bu ñëwaatee fii day toroxal boppam mhm. moo tax na toog fa mu toog mu def la muy def njabootam gi nañu wut alternative am na ñu fa nekk ci ñoom seen biir ñi ngi naan Mansour Faye daf ko bëgg a dafa bëgg a donn affaire bi mhm. Abdoulaye Daouda Diallo ngi taxaw Amadou Ba dana jël lam ca am dem xëj na ñeneen ak ñeneen ñi nga may ambition nañu séddoo ku nekk la ñu am léegi ku nekk paar bi nga am na ba pare bu la neexee nga ñëw nga contribuer waat ko topp ci ginnaaw bi loolu kenn du la ko waaye bu ñu taxaw fii bu ñu jaayaat Macky Sall bu ko raxas fóot ko Macky bu jaaroon na le wiiri ba fële sénégalais bu ñu seenee keru nopp bi rek nañu xam ne ma nga ne te boobu yet yi day jóg <laughs> voilà moo tax nañu nañu politique daal te Assane nee na livre dañ cee waroon bind yu bon yi wala nga dee waaw non <laughs> waaw bilan non xam nga bilan lu xëy na mën nañ ko bañ a bind mais noonu la ma jigéen mi mën a jógee bind livre bu 500 pages te doo ci gisal lu baax lu Macky Sall mm. ndax lu bon aussi nit ñi mën nañ ko wax. Macky Sall dafa rey suñuy doom. dafa toroxal ay borom kër. c'est xam nga mbir mi boo ci nekkoon ci biir mënoo ko xam Macky Sall dafa toroxal ay borom ngir lan ndonoom dafa ko pour intérêt réew mi de ngir ndonoom ja rey suñuy doom. ay xale yoo xam ne xalaatuñ poste ministre xalaatuñ poste député xam lu ñuy xalaat ànd ak ki leen neex ñu ne leen loolu du am. xam nga man mënumaa xam nga tey mënumaa tere ma jigéen mu faral Ousmane Sonko mënumaa tere Souleymane Diaw mu mu faral Amadou Ba waaye est-ce que damaa war a xeex Souleymane Diaw pour mu ànd ak Amadou a xeex ma jigéen pour mu bañ ànd ak Ousmane Sonko te loolu la xeex bi andi woon ku nekk war na am liberté na am léegi nag mhm. bu Macky Sall loolu moom maanaam boo arriéroon bilan ba 2020 balaa ñu dugg mars 2021 bu fekkoon noonu la demee woon noonu jël nguur gi Ousmane Sonko gagné ko ci njekk mu jël ngir mi jox Ousmane Sonko kon tey jii mun nañ di ko sargal ci réew mi mais dafa raté loolu. Mhm. léegi nag ñoom loolu mënuñ ko raxas a livre blanc livre bu ñu defee livre blanc maa jigéen naa ko def livre rouge. Mhm. taché de sang ñu bind ko. waaw setul nag jégal leen ko waaw setul. jégal leen ko nag lu weesu weesu na wala. ñun man de dama ko namm moom Sall ngaari lam tooro ñëwal nag. Jomaay bàyyi ko nag mu ñëw sa sa nijaay la nag dëgg neexul gili gili Jomaay bàyyi ko mu ñëw. <laughs>